ok xaar xaar mais ma man ma lay laaj nga may waxal waaju baax yobul ma commentaire yëpp waaw merci merci waaju baax yobul ma commentaire yëpp euh, Mrs Dieng biñ lay njëkk a def loolu ñaata at nga amoon. est ko njëkk def fan la ko defe suñu kër sama xaritu nijaay. da da da da. daf ko ci raatale wala daf ko dugal ba ci biir wala daf la tegoon ci kawam wala lan lum la def. waaw su ma fàttali ko boobu da daan ma teg ci kawam. da daan bagage da daan bagage wala ci kaw tubéy ju noonu rek la la daan teg. non loxoom. la daan teg sa kaw awra bi. waaw. da ko daan dugal wala da daan raay ci kaw rek. da daan raay nii rek. yow su ko daan def daf daan neex. mën naa ne waaw. waxal dëgg rek noonu ñun ñëpp nit leen day neex dama lay laaj rek mais nit leen. ok léegi euh, moom yàgg na laa def loolu. moom sax gaañu na. non ndax yàgg na laa def loolu. yàggul après mu tuxu. léegi bi mu kan moo ko defar. suñu ku ñu dendal kër. fan la la ko daan defee moom. moom dama ko daan yóbbul añ. Mhm. mu may dugal ci ay oto fu nekk. di la ko fa def. waaw. ok daf la daan neex ba yow tam daan yàkkamtee dem. waaw ndax boobu xale laa woon. non non non bul expliquer wax ma dëgg rek dëgg rek non man nit laa li ma leen laaj yëpp xam naa xaw ma la mosuma laa gis mais xam naa li nga bëgg a wax ak li ngay laaj mais lu ma la laajee fu ci toll rek wax ma li am donc moom ci oto yooyu lu mu la daan ne daf daan dugal wala daf daan raay comme kële. non moom da daan dugal. ñaata at la amoon mag la woon. mag la woon kay. bim njëkkee dugg métti na wala méttiwul. sentiruma woon métit de mënuma sentir métit boobu sentiruma métit ba léegi nii nii duma sentir métit. ok léegi moom danga daan yàkkamte yóbbu añ pour mu def la ko. waaw. ok ñaata temps la ko daan def ñaari yoon ci semaine bi wala lu bari rek wala chaque jour. chaque jour moo fa demee. kooku bi mu la ko daan def ñaata at nga am. boobu maa ngi huit parce que sama yaay mi gaañoo deux mille am neuf ans. ok bi mu la koy def boobu sa yaay gaañu na. non non gaañuwul. mais musoo ko wax kenn. non non musuma ko wax ok ragal moo tax doo ko daan wax wala neex-neex gi ci daan am. ragal ndax sama yaay daf ñu daan teg comme ça mhm. di ñu yedd ay émission rajo bu amee ni mu ñuy woo naan ñu déglu leen. ndeysaan ko yàlla yërëm. amiin. léegi kooku ñaata temps la ko def kila daan yóbbu ci oto yeeg fu ñaata temps la ko def. loolu yàgg na ba niñ may yóbboo sama kër maam yàgg na. ñaata bi ngay dem sa kër maam ñaata at nga am. maa maa ngi am ay onze ans. léegi moom kenn rek moo la ko daan def ci diir boobu wala ñeneen ñi tam den la ko daan def. après sama yaay bi mu ñu bañ sama jàng yàqu ñu yóbbuma sama benn kër dëkkandoo suñu benn kër dëkkandoo foofu rek ci koñ bi. parce que mais bi nga nekkee bi nga nekkee ci koñ bi mënatoo koo yóbbul añ wala ba tey yaa ko daan yóbbul añ. non après nekkatuma woon foofu. ba noo daan gisee après bi nga génnee seen kër noo ko daan gisee bam la koy def. non après man beneen cas moo ma dalaat kooku après man daf ma kooku dafa après daf ma bàyyi parce ba après ni gaañoo. ki la ko daan def noonu ki ki nga daan yóbbul añ dafa mujj feebar ba. gaañu. ok léegi euh, kan moo la ko daan defaat après. kër gi ñu may yoxoon yaraan avant may dem sama kër maam. kan ci kër gi boroom kër gi doomi borom kër gi wala lan. doomu borom kër gi. ñaata at la amoon xam nga ko wala xamoo ko. mag la de à peu près est-ce que tolloo leen woon âge nii. léegi yow boobu yaa ngi am boobu maa ngi am ay ay ay dix ans onze ans. ok moom fan la la ko daan defee. ci mbaaru xar yi. ah. bi ci kaw daf la daan tëddal wala daf la daan juutal. daf ma daan sexal awra bi ba ma ba mu daanu sama jémmiñ bi. waaye moom mosu koo dugal sa biir. kay un jour sax raqam bett nañu mais xam naa mi ñu doon dutee ba xam dëgg la wala du dëgg raq ji ne ko raq ji ma dama yow la boole. looloon def ci néegu diw ma ne ko daf ma waxoon ma ñëw baleel ko néeg bi mu ne ma da ngay fen ma ne ko billaay daf ma waxoon ma ñëw baleel ko néeg bi mu ne ma baax na mais xam naa ne raq ji moom xam na ci dara parce que ni ñu bettee la lan nga yëg bi la njëkkee seex seexloo awraam loo doon yëg dara doo doo doo ndax boobu dama fee man nekku léegi ba ma sëyee nii laa ubbee am yaram mais dama dama nekkoon nit ku tuuti non suma question mooy lan nga yëg bim la seexloo awraam bi pour la première fois sa àdduna mu jël kooyam dugal ko sa gémmiñ loo yëg. dara yëguma dara. seexluwoo bizaarul ak yow. meroo bizaar na kay loo musta loo musta def kay ñu defal la ko kay day bizaar ci yow. moom moo la jàngal màcc kooy. waaw après damay dem dama dem ba adopté wu mu neex la. Mhm. ci à l'âge de onze ans. mais après boobu fekk na moom euh, koyam bi noonu mën na dugg ci yow ba ba jeex. waaw. te da ngay sentir ne lii dugg na ba jeex. waaw. da neex aussi. bien sûr. ok su daano sa kaw dangay ngay yëg sperme bi sa diggante tànk yi da ngay yëg ne lii sperme la. waaw après mu ne ma mu fompal ma ko wala mu ne ma dem ci toilette raxasu. ok. maanaam adopté woon nga ba nga xam ne mënatoo koo ñàkk def. Mhm. ok après. Hmm? ba léegi. après loolu. man daal dama dama dama daf ma affaire yi daf tey tey rek tey rek jël naa sa numéro personnel woola la mais dañ ne ma numéro bi privé la xaw ma mënuma la jot. ok. après bi nga amee onze ans nga génn ci waa jooju après. après ci lañ ma yóbbu sama kër maam. Mhm. ma nekk fa nekk fa nekk fa nekk ba waaju ma takk nii ci lañ gisante. Mhm. mais daan nañ ko def. yaa ko waaj. waaw. ok. moom xam na histoire bi yëpp. moom waxuma ko ñi jaar ci man ñëpp. mais wax naa ko kenn. Mm-hmm. mais musuma ko xasee musuma ko musu musuma cee wax dara daal ànd ànd na ceeg man daal. Mm-hmm. mais man man dama nekk nit koo xam ne damay mer toujours damay xuloo. Mm-hmm. des fois suñu xul un jour daal mus nañ jote mu ne ma man daal jigéen bi mu sekal fekkuma ci moom dara ça veut dire que ni kon man la doon waxal ma ne ko ok amul problème. Mm-hmm. mais daal damay dund lu fu mu nekk nii dama la soxla tellement. danga may message sa numéro man dinaa la woo. ci TikTok bi passé live bi ci TikTok bi nga ma koy message léegi. Mm-hmm. I don't understand what you mean self-esteem around other people. Understand with that English. li ma bëgg a laajte mooy. Mm-hmm. am nga doom léegi. non fu mu nekk nii dama toll diggante. waaw boobu xam naa mais bi mooy sa premier taaw. non non bii mooy deuxième. benn bi dafa gaañu. non non mi ngi Sénégal. ok yow foo nekk right now Amérique. non dinaa la ko su ma la message ginañ ci wax bugguma. Mhm. léegi ndax euh, lii mu ngi lay traumatiser. bu baax sax fu mu nekk nii sama tension bi dafa monte ndax bopp metti ok da ngay toog di xalaat góor yi la ko daan def fañ na ko daan defee nañ la ko daan defee loolu nga nekk di xalaat. ak ni ma nekkee jigéenu wérul nii yàlla xam na ko wallaahi ok. dina waxtaan ak yow. bu nga génne ko dinaa ne tegaat ko. den fi nekk di jooy mu wàccee live bi ñii xamuñ luy yéegal live ak lu koy wàccee génneel ma yëpp merci. Euh, Mrs Dieng. Mm-hmm. li ma la bëgg laaj bi nga xamee ne kooku mu ngi la yóbbu ci mbaari xar yi jigéen ni mu fooree ni ko yàlla bindee nga doon xale 11 ans ñu war laa protéger yërëm la. mu yóbbu la ci mbaari xarit ba rakkam xaw a gis yow nan nga dundeeg loolu ci biir kër gi nan nga doon dundeeg ndaw si nan la doon ndax loolu amul benn yàq-yàq bu mu def sa jàng parce que munoo ñu lay violer sa xel mi di stable ba nga mën a jàng. non après sama sama sama jàng bi suñu monsieur bi ma yore woon primaire dafa dem ba remarqué ko ci man ndax avant sama yaay di gaañ chaque jour ñoom buñ doon def kuuru euh, mardi soir ne sama yaay moo ko doon tibbal añ léegi dama daan naajee ñëw des fois nit ñi élèves gi nañ dugg ba fàtte may door a ñëw un jour mu xooloo mu ne ma yow gis gis gis naa depuis sa yaay bi mu gaañoo ba léegi da nga mel ne dafa am lu la dal doo jàng suñ la joxee devoir doo ko def lan moo xew mën a ko dara mun ma si am na lu xew mu dem foofu noonu kër gi ma nekk mu ne leen dama bëgg xam ci yan condition la nekkee fii parce que léegi dafa mel ni classe du jàng ci ginnaaw lay toog soo ko introsé du trouver du def dara après ki ma yor soit soi-disant tante boobu ne ko kër gi mi ngi fii te kër googu laa gënoon sonn kër gi dama daan yeewu cinq heures du matin mhm. maanaam kër gi këru loyer la dama yeewu cinq heures ta bi ma yoroon sama xaritu yaay la woon démb yaa ngi wax affaire Sandikort mhm. may may maa ngi commentaire mais lii roog kër googu noonu maire bi ci boppam moo sandi sama yaay kort sama yaay gaañu oh. wallaahi dang daan mooy yow góor gi danga ko daan moytu wala den la doon ko def ba mënatu yow bëggoo ko yow yaa ah, dang daan moytu góor gi mu lay neexal di la xacc ngay bañ wala doo daan bañ daan mu woon bañ parce que daf ma daan menacé yaa ngi mu ne ma sa yaay gaañu na yéen a ngi nii sa sa yow ak sama yéen ñëpp tasaaroo ngeen amoo leen foo len nekk soo soo génnee kër gi tamit soo waxee ba ñu génnee la kër gi doo am foo dem dootoo jàngate damay obligé dama obligé noppi su ma woowee daf may buy dem liggéey daf may jox caabeem ne ma demal nga defar néeg bi foofu la may fekk. OK. mës nga essayer pour waxtaan ceeg benn mag pour wax ko sa secret. maa ngi a wax ak nit nii muy yow mosuma ci kenn kenn kenn ok yow dinaa la jël ci suuf ñu waxtaan mais est xam nga ne boo waxee man day mel ni garab docteur da ngay wér sa stress jeex dara du xew parce que fi mu nekk nii. waroo stressé ndax yaa nga war a indil jarbaat yow lan nga bëgg doom bu jigéenam doom bu man jigéen. Eh, doo indi góor bu nuroog man ni ma jongomaa nii bëggoo lool. <laughs> am naa góor damaa bëgg ma tuddee sama yaay. kooku kooku nga koy tuddee su ma nga koy tuddee danga koy tuddee sa yaay ba pare man tam ma tuddee ko maanaatu ndax maa ngi nijaay. incha allah. waa fi nga nekk nii waroo jooy waroo stressé xam nga. te defoo dara. ba dama doon sañee yàlla xam na ko. non bul dugg ci loolu yow suma jarbaat bi dafa war a ñëw ci jàmm ba pare dama mu kontaan nekk bouncing baby girl. su euh, nekk ci jàmm parce que ma nekkal moo may njëkk teg coono fu ma nekk nii. day taxawaalu guddi. mais bàyyi loolu. eh miel bi laa lay may dama lay yónnee miel bi nga du xam nga ne boo am boo boo biiree mën nga sëy. tey rek def naa ko tey ci suba. dama lay jox miel bi. bu ma la joxee miel bi rek coow li jeex na yow duma la jaay dama lay may gratuitement laa lay may mais balaa góor balaa sa jëkkër dama bëgg rek nga xam ne waruloo stressé bu ko def ngir yow waaye sa doom ji nga ëmb dafa soxla sa mbégte mais soo boolee sa mémoire yi passé boole ci sa jëkkër jii di doxaani dangay rey sa bopp rey sa doom man sa càmmeñ laa bis ni tey soo ma yónnee sa numéro dinaa la woo man ma lay woo dina la booleeg ñaar wala ñetti jigéen ñu lay woo ngay waxtaan ak ñoom ba nga am doom ci jàmm. on est d'accord mm-hmm. yow nan nga daan reetaane taabooy. <laughs> bi amul xorom. se reetaan bi ñàkk ah? nit kuy jooy ba pare di reetaan. <laughs> non mais ñaari mën na ñëw nga ne nii nga daan reetaane taaxale bu ñëw sax lañ ma koy xasee ba léegi xam naa dangay ngay yuuxu mhm. non sérieux woo am na ñoo xam ne dañuy ree di tàppaate après dama ñàkk jom nag man moo tax ma ñàkk jom yàlla xam na ko non mais ñàkkoo jom loolu olof moo ko tuddee ñàkk jom mais mooy danga nga ñeme xam nga ñeme métit ba lu métit du la saf seen loolu du ñàkk jom de loolu waaw waaw yow jàmbaar nga maanaam xam naa boo fekkee woon talaata ndeer moom yow <laughs> ci ñu njëkk a dee ngay bopp parce que da ngay lakk sa bopp. <laughs> Ah, yàlla baax mais message ma sa number I'll give you a call incha allah. dinaa la message léegi incha allah. defal loolu waaye te nga siggi gis nga nit ñaa ngi réagir ni nit ñaa ngi nit réagir ne am na eh, Yacine. nee na ma jox ko sa numéro dina la woowoo jigéen jaa ngi nii jigéen ñu baax ne den lay dimbale parce que fi nga jaar leen jaar man am na jigéen yu bari ñu xam ne dañuy dund li mais dañuy ñëw ma waxtaan na leen bañ fàtte ko ba nga xam ne du safe mhm. donc nit ñu bari pare leen pour dimbalanteeg yow mais na nga xam ne wiitoo ci benn yoon te defoo lu bon jeex na yow nante nga nante du jooy du am lu ko naqari